Malaysia. lay siyaar baama nuyu di nuyu papa nuyu di si dérangement bi xam di nuyu magal menge di ko ñaanal jàmm ak papaam yàlla defal leen di nuyu ménagère fi nekk yëpp maa nuyu bu di nuyu yoof gi ma jóge xam di ñaanal bu di nuyu ngor ndar bàyyi ñu jogo faas ciara yu bàyyiwuñu fenn fépp boo xamante ne léwu mu ngi fa rek ñu leen nuyu bu baax di la ñaanal jàmm Modou Mbaye maa ngi leen nuyu di nuyu tukkakat yi fi nekk yëpp xam nga di la ñaanal jàmm bu baax. jaajëf ñu ngi lay bëggee baax koy koy ku la jaas daal daal yi xaw su moo ma jox mu gërëm bu baax di gërëm tamit mooy solo lu rafet. Mhm. yaa deretu xale bi mooy yëngu quoi. waaw Modou ma macha allah maa ngi nuyu ñëpp ñu ci plateau bi. di nuyu le DG euh, Makan le producteur ak euh, doomu sëñ Modou Niang bi ñu ngi koy jaale moom Ndiaga Niang notre frère ak Cheikh Abdoulaat ak mbër yi fi nekk yëpp champion yi fi nekk yëpp ak waa Kër Pape Seck sama gars yi bëgg naa leen bu baax a baax di nuyu suma adversaire. acca léegi ni ma teel leen combat bi moom yaakaar naa am nga trois points moom tamit am na 3 points yéen ñaar kenn ci yéen war a am 6 bàyyi keneen ki am 3 le 28 avril la war a am arène nationale. maa ngi am six points si kàttanu suñu borom. kaay jege sa leen tëkk. Mourou Mbaye. jàmmi dof neexul ay dof neexul. dama ne jàmmi dof neexul ay dof neexul. kii bis baa fu nu mu def daanu. fii nag ay dof neewuñu fi ak ñi def fi nekk ñun jaay nit ñi selwi sa ñoo fi nekk. ay borom xel boole si. Mourou Mbaye man li may wax ci interview bariwul. bërëb bi nag fan yëpp maa ngi koy suivre mu ngi def ay interview di génn di wax wax ji nag bëri na trop mënul ñaax ñaari ndaw la mm. mais li mu koy xamal leen kese la ne mm. néew ci jaale ba la yem caatu yow bés ba noo def daanu yàlla xam na ne maa la mën ñaari yoon yow ragal moo tax nga topp si tey naan ay Babacar Gueye ak Ababacar Fall loolu amul importance maa la mën ñaari yoon si kàttanu suñu borom waaw loolu waxi mbër la kii maa ko gën a pare foofu dafa baaxoo wax mënul ñàkk ñun ay ndaw lañ dañoo yëpp euh, fan yi nag bëri na lu xew ci tiktok bi mooy booy jaamante xam nga di tegalante yooyu noonu mooy loolu mais maa ngi tuubal kilifa yëpp nag ndax suñu jëmm yu xeeb yi rek moo waral yenn xam nga wax yu xaw a ñàkk taalibe di génn mais warul suñu diggante waaye yoof ak yooyu noonu. Mm-hmm. parce que man yoof tongo suma kër maam mi ngi fa. xam nga mm-hmm. lamb la nag lamb la. ñaari ndaw. bu ñu masee ci làmb bu ñu bëree du neex. du yomb foog fan siy yëngu. Hmm. jaajëf ñu koy xaar la le 28 ci kàttanu yàlla. waaw nee na mooy nee na mooy mun ñaari yoon. waaw loolu waxu mbër la ndax xaga tey bu fekkoon moo mun ñaari yoon du jar muy entraîné wala muy xam nga dem di nekk ci boppam. dama la wax du waxi mbër de waxuma a waxi mbër maa la mën ñaari yoon boo taxee dëggal sa bopp moo ne la maa la mën ñaari yoon. du yàlla. yàlla moo xam li bu dëggalee boppam du yàgg. dafa am benn proverbe buy wax naan.

téye sa loxo nga wax li ko xam nga téye sa loxo yi da nga koy téye ngay téye sa loxo yi fii garaawul fii doomu fi laan demee le la koy def dama lay daan jël bu rëy incha allah boo xeexee ma duma la sa bopp man suma mm. lamb yëpp ku ko seetaan xam ne lamb boo xam ne day neex kàttanu man kii man ci tefes gi laa dëkk barki maam Cheikh Rafal. yaa ngi dégg xam nga la laa ah? Ah. dem géej teer ko ndawal loo gisee laa seq ak may du leneen. maa nga dàq dem géej foofu li muy wax ne di du mool. déggoo ma de. du mool barkaal du mool déggoo ma du mool. waaw ba tey bu ko neexee ma tegal ko position booy saaraan bu ko neexee ma tegal ko position booy njogi bu mu ci dugg la xasoo. li ngay wax ne man jàngu ma lool man napp laa jàng soob caas napp laa jàng jàngu ma bool tàng. soob caas ñapp lool da yàq géej. loolu tere nañ leen ko ba tàyyi loolu mooy caas yi des ci biir ndox mi daray jën yi waaw li ñuy wax mbaal mooy yàqu géej mais bu dee caas yàqu géej moo la ñuy wax mbaal dañ koy seet saway li ma la eh, eh, li ma la mën la wax daal mooy yaa ngi jot de technique expression eh, sa yoon ne sa yoon ne si yow li muy wax nii billaay maîtriser wu ko xamu si dara eh barke sëñ Baba kan maîtriser wu ko mu ne yow maîtriser woo yàlla xam na loolu loolu dana wax ba tey sama wax du ju bëri xamu tax <laughs> man doomu ndopp laa doomu doomu mbot laa ci ndox mi laa juddoo mais euh, li ma koy xamal mooy. caatu hmm. yoof hmm. bu bis baa. Hmm. na nga dëggal sa bopp. mais yow loolu loolu boo ko waxee jaay rek di nga xam damay dëggal sama bopp ngir yàlla li nga wax ni jëfe ko rek man xam naa dama naan xiis ma ne paa nga dugg sama tànk yi. tala ma jàppale daal la. xam nga lamb la wax. yàlla xam na man dama war lamb man dama war lamb mom laay xalaat mais man dama war lamb lu ma oo ma wuyu ci kàttanu ah billaahi day war lamb si dans combat day war lamb da lay woo si nga dof mu jaaral suuf la. Modou Mbaye ma sama làmb bu yàqoo. Hmm. xeex mu ko yàq. waaw suma dóor mbër mu taxaw. xam nga tey moom moom mooy Poutine Ngalla ren. waaw bu bis baa. waaw maay xeex maay bëre maa koy duma ci kàttanu yàlla ñëpp xam nga leen. xam naa ni da ngay gëmm di di la wax seen qualité ak seen. ba ci moom ñi ci nekk ñëpp xam naa bëri wax di wax <laughs> a dayee man a ba nga xam ne muy bëri. Eh, te bu boobaa noonu lay bëri. yàlla xam dama la xam ñaar yoon. man nga ma xamee. xam naa ni ngay bëre. xam naa ni ngay fan nga ko xamee fan. moo wax dama important. non wax ko. soo ma koy wax non non. li la ñuy waxati man musuma taxaw ne ko Thiatou Yoff ni ngay bëree xam nga la séq moom. ma nga am le vingt ma duma ko daan ko loolu man dama la xam la sawaay boo ma xamee benn xam naa la dix billaahi wallaahi taala xamoo ma wax ma noo ma xamee ma wax la nu ko raw loolu dégg mu xam la moo fi indi non dagga sant bi bàyyi boo ko bëggee rek ñu jébat ci gaar li ngay préparé maa ngi koy waaj da ngay boo xam man bu ma laal. billaay wallaay maa la alxuraan maa la gën a pare aller retour. Ba Sine maa la ma ñaar yow déggoo ma de yàlla xam na loolu déggoo ma góor yàlla nga dajal yaa ngi wax nii bu bis ba incha allah rabi. garaaw garaaw li garaaw li garaaw. yàlla yàlla may fekk ba la benn jiw rek incha allah. li yàqu maa di wax la. woote arrière lamb xale la. di wax ne euh, ñëw pour signer contrat. lépp lu nga xamee la rek ñu ngi jégalu askan bi bu baax di jégalu amateur di wax ne dañoo nekk ay ndaw te day tàng. dëgg ci vraiment parce que lamb la. Mm-hmm. indi woo non du ma indi mm-hmm. mun naa cité oralement. Mm-hmm. may téye ay noonu élève ak yooyu xam nga yooyu def. baax na la waxal. sant mi nga ne moo taal indi di autorité international. Ahmed Dramé di la Wat ne la loo mën a ci ji rek doyul hmm. Ousmane Faye jàppal ci làmb ji awaña wona naa gi yep nak bayuma ken wona woo euh, tefes gi tamit fukki pinje ñaar wa Bawol wona Bawol gi yep waa Ndar ba ci Abdourahmane Samba may wo gaay yep dañ may ñaanal fofu bu baax ba xam hmm. di wax ne ko sen dom mo am lamb di gërëm gaay mandol ma àndal ñoom Bas booy nekk ci tiktok bi tamit gis naa li ñuy jaayante mais lamb la nañ def ndànk rek bañ a indi violence ndax xam nga ñun ñaan ñëpp ah. ay ndaw lañ te bu ñu paree dañuy ñibbi ci jàmm ak salaam xam nga di wax na ñoom MK ñoom Ouskara vraiment ak ñoom yaa li gars yi di xeex ci tiktok bi yëpp ak waa Yarax yëpp waa Kër Massar tamit bàyyi ma leen prési maa ngi lay bégee waa Kër Massar Alaaji Paate Sotorak Grand Médine Yarax zone 7A zone 7C waa Dalifor doy na doy na mu ne doy na non gis naa ñu ñu gën a yàgg ci plateau bi fii te ñu ñoo di wax ne caaro yëmbal malika waa niger maa ngi leen di bëggee sama paa yi nekk foofu waa guinée bissau sama paa yi nekk foofu maa ngi leen di woo ci làmb ju baax mm-hmm. waa mm. malifara bàyyiwuma kenn ndangaan bi yëpp waa jofiyor waa nangaan samb fimla waa bikol fatick bi ah. bàyyiwuma kenn waa Ndar woo naa leen ci làmb ji ah. di wax na waa Waalo aussi tamit waa Waalo woo naa leen ci làmb ji bu baax a baax waa Kajoor. doy na doy Karaajo mën na doy na Karaajo Karaajo mën na doy nag di wax na suñu DG ONFP ak doomam Mohamed maa leen di nuyu euh, di gërëm maam Boy di ko wax ne kaay jàpp ci làmb ji xam nga nit laa ko waa te su ma limee rek damay juum quoi. dëgg la fan sa gëlëb caatu yaraax bi gis naa seen taxawaay na ci gars yi taxaw bu dimanche ci kàttanu yàlla caatu yoo ma jàpp ko Ababacar Gueye ma jàppale duma la daan la ci kàttanu yàlla. ah da ngay wax sa tur yow tamit. non non non ah garaawul yow garaawul. man lii lii am la ma importance. mën naa yow dem entraînement loolu laa gëm. yow ne góobu loolu sax. Moustapha ñi ngi la tudd Moustapha ñi ngi. yaraax yaraax masul yóbbu yoof te du yóbbu yoof ba fam yaraax masul yóbbu yoof te du yóbbu yoof ba fam. bàyyi li ngay wax yàlla xam na loolu. Eh, non non non bàyyi eh, gëgg wooteel wooteel. day tontu wax na. xam nga ma doon tontu. Ah. yaraax ak yoof benn la xamul tax suñu parents yi nekk foofu ñoo nekk fii ñu nekk fii ñoo nekk foofu daa mm. ngi dégg ñu musuñu sax dem compétition bu dee rawante gaal bi mu wax dañ leen tey duma saa su nekk bu dee fubal ñun ñooy duma ngi dégg benn victoire lañu fa am moo tax ma naan yaraax mooy mooy contre Malick Niang Moussa Ndoye loolu dara lamb la ci kàttanu yàlla le 28 laa lay wan le vrai waaw woote nga ba pare nag yow tamit ah Modou waaw bu ko bu ko bu ko duma fii bàyyi ba njëkk a ba ba ba ba ba ba ba non non bàyyi ba njëkk a arrêté. fii gars yi dañuy àtte dañuy bàyyi ba mu génn. fii dañuy àtte. boo paree bul dem ba taatu xoolal droite nga xaar ma dem may ñëw ñu nga gëlëm ak yow. xaar mu woote ba pare. Modou Mbaye xaar mu woote. billaahi wallaahi yaraa masul yab yof tur yab yof. li muy wax ne rawante gaal jow ana yi lan commencé am di am dara si alxuraan saa yu ko defee yaram yooyu eh, waxuñ ñoo fi jëlee wax yooyu wa gooteel kenn daawu leen lim si sport yi waaw wooteel waay temps ko waay jaar quatre weer waaw kenn daawu lim si yoo fi si si si foom foom foom foom quatre weer bàyyi teel la waaw sant yàlla bu baax julliwaat si yonte bi xam nga ñëpp di wax sama boy ne xam nga muy yaraax muy yoof yaraax yoof benn la kenn mënu leen di xajaale xam nga sport la bu jeexee jeex na mën na maa daal mën naa ko daal ñu dem. si mën na maa daal mën naa ko def am na solo ñu bàyyi ko violence bi saagante yi si TikTok bi xam nga. dëgg la bëri na trop jaru ko. ñun suñuy gaal dañuy ter yaraax di jaay jën ñoom seen i gaal day ñëw yoof di jaay jën xam nga rafetal rek xam nga di nuyu bu baax di santal bu baax di lu waay sant bi xam nga. di may sa bopp bi muy wax bi muy bi muy muy sant léegi muy feeraay. jàpp na si combat bi ñu koy sant bu baax a baax a baax xam nga di nuyu Baye Seydou Laye maire Yoff ñu lay woo si combat bi muy jàpp si xam nga Abdoulaye Diop Sarr ñu lay woo si combat bi Aziz Ndiaye ñu lay woo si combat bi Yax Baye Ndiaye bu leen xaasu dikkee nga ñëw jàppale ñu si bu baax baax a baax a baax xam nga du nuyu Bira ñu ngi lay nuyu bu baax Abdoulaat Ndiir xam nga Tayrou Sarr xam nga Fat Diagne naas yi ñu woo bu baax nga ñu jàpp si combat bi xam nga Omar Ndiaye Tongoor ñu ngi lay woo bu baax nga ñu jàpp si baax Père Arona Belgique ñu bu baax Abdou Tall Abdou Tall bu xarañ loo ñu ngi lay woo si mbole bu ñuy jàpp bu baax baax baax baax baax xam nga di nuyu coach gi nag maa ngi nuyu coach gi bu baax di nuyu coach gi bu baax baax baax baax baax xam nga di nuyu Pablo waa campénal yëpp xam nga Sambour 14 maa ngi leen bu baax xam nga di leen ñaanal jàmm yàlla génne leen foofu ñu nekk noonu maa ngi leen ñaanal bu baax xam nga di woo dubun dubun borom Amérique mu ngi jàpp si combat bu baax xam nga di nuyu diaspora bi bine bi ne si Amérique xam nga Canada xam nga parce que club bi par exemple li li wax ndoo ñu ngi koy nuyu bu baax xam di woo ASC e yi ne si Yoff yëpp muy ASC Tongoor eh, eh. président ASC Tongoor. doo bàyyi sa micro bàyyi sa micro bi. Ah, waaw maa ngi lay gën président ASC ñu naan xam nga président ASC seen président ñu ngi woo si combat bi mais ngeen laa yéen appétit xam ba bokk waar bàyyi ñu kenn ñu ngi woo ñëpp ñëw jàpp si ticket yi suñuy problème mooy ticket yi nañu jàppale xam nga ñu ngi woo maa ngi nuyu sama gars yi. daal bu ama maa ngi koy nuyu waaw eh, da nga bëgg lu yomb waaw 100 pour cent Yaraax gis naa li ngeen daj ci man ku ci mel ne ñoom Wës Jàmbaar au Sodou doomu ndey Serigne Ndiour Moussa ba Maroc di ko ñaanal yàlla jàmmuwa ah. di wax ne maa ngi woo Serigne Ousseynou Laye euh, di ko wax ne na ñëw jàpp ci ko baax baax na baax na baax na tëgal tëgal tëgal jàppante la waaw waaw maa ngi koy bëggee bu baax a baax a baax caatu yar ax caatu yoof ñu ngi